بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعبود بكل لسان والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام البررة ورضي الله رضا خالدا عن الاولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله اسوه حسنه اخوه الايمان والعقيده في كل بقعه من بقاع الارض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جليت ني دغلو تي سفينة اف ام 98.2 ngi len نيو nuyu ngi زيارة ñu ngi leen di baalu xaq di leen ndokkeel ci weer wu tedd di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu sunuy bakkaar di ko ñaan mu nangul ñu li nu koy jaamu ca na mu toll te bañ koo nangoo ci ni ñu toll di ko bu ñu ko nangulee mu làqal ñu ko fa yàq àggul ci barke yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa seen mbokkum taalibe alxaaji abdul aziz fall moo dellu siwaat ci daara ji ci seen waxtaanu tasawuf ki nekk ci technique bi sunu mbokku mbopp Samba si ñu koy ñaanal yàlla tawfiq ñu ngi nuyu di ziyaara di ñaanal suñu directrice su bopp di soxna ñu ma ba ko ñaanal yàlla tawfiq ak taysir moog mboolem ñu koy jàppale di beral nuyo ak ziyaara ak ñaan suñu wëllëre bopp di soppe di xarit borom kër gi alxaaji Cerno Hamidou Ban ñaanal ko yàlla tawfiq ak taysiir ak najaax tabaarakallah ñu waxee tasawuf mooy defar jukko ba mën a xaritoo ak yàlla تبارك الله كيغا خامني موم لا نو يالا جوخوغ سي والو وو موي سونو ريفيرانس مودي ينت يالا محمد صلى الله عليه وسلم اخ يالا امول نداي امول باي امول سخنا امول دوم te bëgg na ku mu wéttalikoo te wéttali yàlla yombul ku niroowul ak moom jukko mënoo ko wéttali mu tànnal boppam moo tànnal boppam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaral ko boppam ba mu mel ni ko neex mu ni waaw kay li ma bëggoon am naa ko mooy ku ma mat wéttal doy nga ma baatu doy nga ma bi yàlla wax yonent bi doy na bi la yonent bi doy na ko waaye yonent bi it yàlla doy na ko ndax ko toll ni yàlla ni la wa innaka la ala xuluqin azim waaw maa la bind maa la yar waaye ci dëgg-dëgg doy nga ma wéttal فتبارك الله احسن الخالقين الاول بتيكو نك نيكو عايشة يويت فخيل بير نيلو دوي يويت فخيل بير نيلو دوي متل ويتل صلى الله عليه وسلم آه. defe naa def na ko de wallahi ñëw fekk àdduna bu lëndëm ay bokkam di jaamu xërëm samp bant yett xeer di ko wékk ay butit nan ko yaay sama boroom yaay sama yàlla lu suufe loolu nit bu ci yeggee su maradadnaahu asfala saafiliin yonent beeg njàmbaaru ruuxam sallallahu alayhi wa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak kattanu ruuxam njàmbaaru ruuxam ci diir bu néew ñooña daan sujoodal xërëm yi di leen naan yéene sunu yàlla ñooña di buuxante ca xadaratul xay bi ak malaaka yi malaaka feesatul seen bët waaye bu ñuy woo malaaka sax camarade lañ koy woowee ndax yu buur leen dara ci jaamu yàlla ak sell gàcce ngaalaama moom sallallahu alayhi wa kenn du moom waaw ah, waaw moo tax su mutul yàlla wéttal yàlla du am wéttal waaw ah, waaw moom rek moo xam boppam صلى الله عليه وسلم بكسة بابم دوم روح مولانا قطب العارفين أبو العباس أحمد التجاني رضي الله عنه دي خلات لن لكي تجمم ينتبه ينتبه لكي بايل ما وخل سما باب تخ baatu allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaaquutati almutaxaqiqati alxaaitati bi markazi alfuhumi wal maani kenn musul wax lu ni toll bu xamul woon boppam du wax loolu waaw topp ko ba ci wa nuuri kallaami alladi malata bihi kawnaka alxaaita bi amkinati almakaani topp ko ba ca alkanzu alacdam boobu laa doon wut waaw alkanzu alacdam moo di yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko jële ci boppam delloo ko ci boppam mu amee jukkoy yàlla bu ko yàlla xoolee gis ci boppam moo tax miraatu zaatika moo tax mag ñi ni ko wa miraatu zaatika waaw seetu bi nga xam ni bu bëggee gis sa bopp yéem sa bopp xàqataay ndax ni nga mel yenent bi ngay xool mooy miraat bi mooy seetu bi yàlla jël ko denc ko jël al kanzul aadam boobu mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa denc ko waaw lu ko naqari ci jaam yi ba ba mu nar a génn ci mantum yërmandeem summi mantum ñeewantam jël mantom meram sol ko pour régler ko bu ñëwee ubbi fa mu denc yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bu ko xoolee lu ko metti woon jeex al kanzul ko wax tax jawharatul kamal tabaarakallahu nanu yàlla may fekkee ba ñu jël ko rek dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom itam doy na ko wéttal ñu mu yaral boppam fekk leen ci ci ci xaal bu mel noonu jukko yu suufe bay jaamu xërëm la jaafaru sadiq waxoon قد كنا كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام آه، ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف من يكون بوربي من بوربي بوبجي خم يننتي بتخ مجرل نوني باي سلو كرنيو في لاكوسي تلولو متي ونو موي فمو ني جيلي fi mu nu jëmee ko gën waaw ndax mi ngi nu fekk ci jahiliya waaw ci époque boo xam ni waaw ignorance ak jahl moo muuroon àdduna bi xel yi tëju ruux yi tëju xol yi tëju kenn xamul lu tax yàlla bind àdduna bi indi ñu fi lu neex sunu bakkan rek ñu nekk ci mu ñu ko ba ñu jàpp ni loolu mooy dund loolu mooy jox dund valeur ñu ko ci bii ñuy tax ñu génneenu ñëw mat suñu loxo jële ñu ci lëndëm googu dugal ñu ci leer gi waaye kon fa mu nu jële fa mu nu jëmee ko gën jaral nañu lu nekk xëy rekk moom itam asxaabi kan nu juum asxaabi la wax waaw ah, yar na leen ba ñu mët ko wéttal waaw ah, ngi samay gaayaa ngoog waaw ah, samay saxaaba kan nu joom koo ci laal biddiwu la waaw boo ko toppee mu gindi la ba teg la ci yàlla bi ayihim muqtadaytum ihtadaytum sallallahu alayhi wa sallam te ba tey ba tey ba tey fii ba bisu tey mi ngi yar ay nit moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax dikkam moo defar adduna ndax adduna jukko moo koy defar makaarimul axlaaq mooy defar àddina te jukkoom bi mu dikkee la fekk àddina bi rafle jukko yooyu makaarimul axlaaq yépp dem waaw ah. mu delloo leen benn par benn doy na ko tagg li ko amiru shuara Ahmed Shawqi wax waaw waaw ñu ko wax ni ko jaat fa waxadati zakatu sabilahu xatta altaqa alkuramaau walbuxalaau jaat zakatu fa waxadat sabilahu li jiitu ngay ñëw yow yenent bi ñaar daawuñu bokk jataay daawuñu toog ñi am alal ak ñi ñàkk daawunu seq jataay ndax ñi am dañu xeeboon ñi ñàkk ñi leen duñu seen classe bokkuñu ak yéen lenn moo leen di boole soxla ku la liggéeyal nga mbaam tuguli tuguli ko pare na ci moom waaw mu ni ko yow ciiw sa dëkk ci lañu ñëwee ci sa pénc xàmmeetuñ ci ki ñàkk ak ki am allahu akbar kooku moo xam valeuru dund ak valeuru ñiy dund qiimatal xayaat wa qiimatal axyaa kooku moo xam valeuru dund ak valeuru ñiy dund fexeba bo ñewé ci pénc yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doo xàmmee baynal ghani wal faqir te mom ni ko def la hawla wala quwwata illa billah مولانا الشيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه وخنا ني دان توك toog leen بي bi نياري وير ñaari weer cin du kon faqiir la woon amul woon alal mais li yéeme mooy li ñu miin ci ki amul alal buy woo borom alal yi ak lu mu leen mën a wax dañuy jàpp ni seen alal la soxla waaye lan li war a seetlu mooy lu tax amul alal ba noppi borom alal ya boole seen bopp ak seen alal jox ko boo mu posé question bi ma ni la jukko gi ñu nemmeeku ci moom te mu dàqal leen ay milliards jukko jooju moom moo leen séduire ba tax ñu boole seen am-am yépp ñëw ni ko yaanu moom kàttanu ruuxam la waaw sallallahu alayhi wa sallam woote am ñëpp wuy jox la seen bopp seen alal waaw la nga leen séduire ba loola mu jaral leen ko. bu dul jikko loolu mënul nekk moo tax professeur ba nekk ci classe bi di jàngale siire yont yàlla muhammad sallallahu alayhi di wax li ci vingt trois ans waaw vingt mu ubbi charq wal garb bàyyi fi loo xam ni amul tànku gannaaw tànku kanam rekk dëgg goo xam ni lu jaar ci kanamam mu joggati la dem ci vingt-trois ans mu di leen jàngal li yenent bi réussir benn élève jóg tàllal loxoom ni ko dama am question bu ma lay posé mu ni ko diw lay déglu mu ni ko waaw lii nga wax ci yonent bi yëpp ni moom la réussir ci vingt trois ans te dégguma nga wax ay milliards yu mu amoon dama lay laaj est-ce que yonent bi kaana ganiyan aw faqiran dafa ñàkkoon walla milliardaire la woon allahu akbar بروفيسور بينيكو كان غنيا في في في, في النفس وفقيرا في المال كان غنيا في النفس وفقيرا في المال نيك الروح با الروح با مود مودوفون الروح با مو اوملون ko waaye poche ba dara newu ca woon allahu akbar ku lamb sa poche dërëm newu ci nga ubbi aalam bi sharqan wa maghriban حتى التقى الكرماء والبخلاء fexe ba ñi am alal maaseeg ñi amul doo xàmmee ci péncum yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki ñàkk ak ki am waaw lu tax awsafta ahla alfaqri min ahli alghina فالكل في حق الحياة سواء لا إله إلا الله mës ngeen gis loolu ku ko mën a réussir dajale ñi am ak ñi amul waaw forcé woo kenn bundu kenn waaye nga fexe ba ñi am partage lañu am ak ña amul ba nu yem yem ci dund gi ku ne gis sa bopp ci pénc mi ها متخ والله والله نيمو كو وخني فلو ان انسانا تخير مله ما اختار الا دينك الفقراء لا اله الا الله كبودين وون يالله moo tànn diine tudde ko lislaam ñu ko bëgg ma jëflanteeg yow wuy si ma ci cadre lislaam yàlla mu tànn lislaam muy diine mu ñu ko yow nag bu yàlla tànnul woon benn diine xanaa binduñu rek bàyyi nit ñi seen sago ku ci dem bay xalaat fan nga war a tënk sa bopp ku ci dem bay xalaat fan nga war a tënk sa bopp mu ni ko yow la nit ñi di topp donte yàlla joxoñu la woon waaw donte yàlla joxoñu la woon ni la yaay jëwriñu tool bi te moo di lislaam ni ko bu nu yàlla bàyyee woon ak sunu sago yow la nuy topp si maxtaara illa diinaka alfuqaraa waaw na dunde na nga tërale ak na nga mel mu ni ko kon ñi ñàkk ñëpp ñi ñàkk ñëpp yow la wuy si ndax yaa gën ñëpp ci ñoom waaw yaa gën ci ñoom xaw ma ñi am de <clears throat> waaye ñi ñàkk moom ci pénc mi du ñu sànnil kenn carte ku dul yow ndax yaa gën ñëpp ci yow ci ñoom tabaarakallah ahsanul xaaliqiin ah, waaw penc moo ñëw bëgg xam ka sang xool alfuqara ah, ñu néew doole ñàkk waaw ka nangoo féeteeg ñoom xeebu leen ndax la muy xool ci ñoom mooy pas-pasu yàlla bu wër ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal ni kooko sang la waaw xamal ni sang la waaw yombul yombul ci penc di wut ñoo xaritool ñoo féeteel fekk ña amul dara ci seen poche waaye seen pas-pas waaw seen pas-pas waaw fes dell waaw foo làmb daj seen pas-pas ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ngir sallam nga ñoom bàyyi ña am waaw mooy wut sang bu la koo ko raw maa la ko wax waaw ah mawlaana cheikhul xalifa abou bacrin si radiallahu anhu am na ñu ko soppoon ba mu gënal leen lépp luy dox ci kaw suuf te bu ñu masaana waaj pour dem ziyaari ko dañuy am kersa ndax bu ñu sañoon li gën ci ci ci ci li ñuy terale nit ci àddina ñu am ko yóbbul ko ko waaye seen poche dara newu ci ndey sànn waaw ba am bés rek ndey sànn ñu tawat ko ko waaw ñàkk gi ñu koy ñàkk jox hadiya metti leen waaw waaw ca jug koy sang ga mu ne ah dénk ñu ma seen poche seen pas-pas la ma dénk waaw waaw jàppewu leen poche yi waaw pas-pas yu xol yi waaw moom laa leen jàppe fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin waaw moo tax yàlla kërim këram du fi invité fa invité baadoola waaw ah, yàlla këram du fa invité baadoola waaw baadoola mooy koo xam ni jukkoom baaxul waaw ah, noo ko yéene yéene ah, waaw fa ngay mujjee moom mooy jéppi ko ndax jukkoom baaxul jikkoom dafa suufe yàlla du invité këram baadoola moo tax ahmed shawqi wax ko ko يا أيها المسرى به شرفا يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء yàlla nañu yàlla fayal Ahmed Shawqi waaye ku waxal sa kilifa lii waaw mënoo ko fay waaw yaa ayuha almusra bihi sharafan ila ma la tanaalu shamsu wal jawzaau ah moomu nga xam ni da nga xëy rek yàlla invité la ndeysaan invité la këram te yàlla du invité këram bado la waaw ah, sarafan ngir fayee la sa tedd ngay jukko waaw ah, na nga góorgóorlu ba forger sa personalité waaw ah, te loolu moom la bëgg ci jaam bu am fayda waaw ngir fayee la loola seet na seet fa nga ca àgg kenn àggu fa mu seet seet lu mu lay terale mu ni naa ko defal lu ma musul defal kenn dootuma ko defal kenn mooy invité que sama kër face à face sallallahu alayhi wa ah? allahu akbar dafa su jukku tedd yëkkatiku waaw ah, yëkkatiku kawe yàlla invité la yëkkati la ba nga yegg fu jant munta yegg waaw ah. Ah. al burj al jawza munu fa yegg waaw jant bi yeggu fa jawza yeggu fa ah kenn mësul gis loolu waaw xeeb nga jant bi ndax kaweem xeeb nga ko waaw séenul sa pënd waaw ku yëkkati sa jukko yàlla yëkkati la sa jukko yàlla yëkkati la lu ni moo tax ñi seen àlluwa gàtt te ñi ñi posé question bi njabootu yonent bi lañu waaye seen àlluwaa gàtt na ñu ci werante bind ci ba julli ñu woor bind ci ba alku yatasaaluun wa anta atharu haykalin بالروح أم بالهيكل الإسراء لا إله إلا parce que ku ku gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ko xumu kuy làmbatu rek ni yonent bi parce que ki jàpp ni yonent bi faatu na jeex na mi ngi ci bàmmeel existé tul kooku moo ku ko xam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que di nga toog di poser question naan ndax invitation bi ko yàlla invité ruux bi rek a dem wala ruux beeg yaram bi ñoo ànd dem. ودي اللياقوتة المتحققة آه. الله أكبر حمد الفرق بين آدمية الإنسان وإنسانية الآدمي آه. آه. walla bayna aadamiyati l aadamiy wa insaniyati l bokkul waaw ah, min aadam wa aadam min turaab yéen ñëpp ci aadam ngeen jóge aadam ci ban lañ ko binde ko koy cosaan ba boo fa nattee nit ki doo dem ah, ها وعينك بدمتي ونور الأكوان المتكونة الادمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني كي toxoo ci بان بوبو دم بانك هيكل نوراني nuuraane yi بان ci matière dem ba nekk nuuraan anti matière ku ku laaj ndax jëmm ji ak ruux bi ñoo ànd dem walla déet déggunoo subhaanalladi asra bi abdihi subhaanalladi asra bi abdihi baatu jaamam bu ñu nee jaamam rek ruux baak jëmm jaa al abdu al abd naa kéemtaanu googu sax fekk ruux ak jëmm nga yëkkati ko yóbbu ko foo xam ni jëm mënu fa yegg te wàññiwu ko dara lorwul kàttan googu sax يالا خامنا ني بودول موم كين مونوكو موتاخ مو باك بوبام سبحان الذي مو كاج بوبام موم يالا لي كوكا من كودول مان سبحان الذي اسرى بعبده تخ نيفا نيك نان يتساءلون وانت اطهر هيكل واخنا دغ هيكل نوراني لا موم ينتال محمد صلى الله عليه وسلم waaw ah, jëmmi ban ba leer lekk na ko waaw ah, leer moo ko lekk moo ko wan nga tax haykal nuuraani yi la waaw ah, bi ruuxi am bi la haykalil israa ñu ruux bee dem ci invitation ba walla jëmm ji moo dem boole yaram beeg ruux bi waaw ma ni ruux bi ak jëmm ji ñoo ànd dem waaw <sighs> ñoo ànd dem ndax amul amul amul lu takk ci moom yonent bi amul lu tilim ah ah, ah lillahi nuurun yakunu llahu mudiahu abal wara tahiran fi tahiri chiyami ah, ah bokkul ak benn jëmin waaw waaw ak lii lal arubati xàllal durru fii rajabin ak durru waaw yooyu yëpp boo gisee mag di ko abbu mooy xam nañu ni bokkul ak kenn moom sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax jëmm jaa dem ak ruux ba waaw nelawul gëmmentuwul géntul bihima samawta waaw bihima samawta mutahharayni kilahuma nuurun wa rayhaniyatun wa bahaa'u laa ilaha illa allah waaw ki la doon jël si engin bi mu indi jibril ak engin bi mu indi pour yóbbu la ci jëlul jëmm bàyyi fi ruux jëlul ruux bàyyi fi jëmm ñaar yëpp la boole jël mu taxaara yi nii ñoom ñaar ñëpp sell amul lu tilim lu ñuy interdire xadratul xay bi pour mu dugg fa ñoom ñaar ñëpp sell kilaahuma nuurun ruux ba leer la jëmm ja leer la waaw ah. allahu akbar روح يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ليرلا جن يونت بي صلى الله عليه وسلم ليرلا موتاخ مو من كو وال نيت موتاخ مو من كو وال نيت لي تي موم فاسال اجيبك بان نور المصطفى طهرت به الارواح والاجسام ca Mawlana Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu waaw fasal ujibka bi anna nuur al Mustafa waaw tahurat bihi al arwaaxu wal ajsaamu waaw leeram googu moom yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ci la jël ñi ko jox seen bopp waaw topp leen topp leen topp leen ba ñoom itam ah tabaarakallah ahsanul xaaliqiine seen jëmm ya nekk jëmmi leer waaw seen jëmm yi nekk jëmmi leer ah, seen ruux di leer seen jëmm di leer looloo tax ngay dund dundandoog ñëw fii dog jot nga jox leen tàndarma ñu lekk jox leen kaasu kafe ñu naan te boo tëddee di nelaw ñu dem ca markazul fuhumi wal maani دفا السياجة وتدي دي نلاو نيوم نفخ دم تا مركز صلى الله عليه وسلم توك مولانا قطب العارفين ابو العباس احمد التيجاني رضي الله عنه ني ديريكتور سانت دي توك ني جاكارلوك نيوم lijjanti dossier yi waaw moo tax bu nu yàkkanti waaw leen naqari ci àdduna bi ñu ko faj xam nañu fa nuy jaar pour faj ko mag ñi laa wax mag ñi waxuma màggat yi de mag ñi laa wax waaw waxuma ñi lekk ceeb ak dugub ba seen yaram ras di déedéet mag ñi laa wax ah? mag ñi ñu leen naqari rek xam nañu fu nuy jaar ba wutal ko solution wolof nag nee na saaga yàkkamti xeex la ah. Ah. saaga yàkkamti xeex la te Serigne Cheikh nee na am na koo xam ne du bale fu mbalit amul waaw tax lu leen naqari rek daañ ko wutal solution waaw yeneen bi jëmmam leer la ruuxam leer la moo tax mu mën ko simmi ci yeneeni jëmm waaw ñu ko yow daal sa ruux leer la sa jëmm leer la kilaahuma nuurun أضاء الكون waaw sa leer googa waaw moo leeral univers bi ah waaw xaw ma xaw ma lu xew waaye keroog bisu invitation ba waaw ah, li ma wóor mooy fa mu romb gis nañu leer fa mu romb di dem gis nañu leer gu ñu mësula gis ndeysaan waaw ah, leeram googu moo leeral foofale ci façon bu mu daawul leere ñuy làcce ah, ñuy làcce lu xew ba leer gi fi jaar bokkul ak leer gi fi daan am leer gi fi jaar tey moo ëpp doole ريحانية لسان ها كنا دين نوكيل سامورام لا نواو غت غت غو نيه غي بي خين بي في رومبو تو موسو نيكو خين تو كان لا ماني لين احمد لا يا احمد المبعوث بالحق الذي خضع الرقاب اليه والاقدام mooma moo fa jaar sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, ndax riixuhu misk waaw wa bahaa waaw waaw ah. mu romb di lacce waaw taar bi taar bi jamaal jamaal bi ñu gis tey te musuñu ko gis leen yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw sallu ya ahlal kamal al nabi baahil jamal waaw waaw waaw waaw sallu ya ahlal kamal al nabi baahil jamal sallallahu alayhi wa sallam منك هي يا رسول الله يبلغ فضل عليك ليسان لذي العرش والله فضل عليك لذي الجلال ومنة الله أكبر يعني يدلوك وكان فضل الله عليك عظيما هي إيه. هي. آه. من دال دفا من ينتبي دفا ينجل يالله daf ko yëngal ndax daal li tax yàlla yàlla bind ko ba noppi amul sago ci moom ah lu mu ko tere la xeeb ko lu mu ko tere la xeeb ko ba xëy natt li mu ko terele xam ni moo ko xeeb waaye ëpp na ci nit moom yàlla lu mu terele yonent bi rek xeeb ko ndax ni yonent bi toll ci moom waaye mu dem bay mu natt li mu defal yonent bi mu ne man sama xiirte ci moom laa topp waaye kii li ma ko defal ëpp na pour nit mu ne yonent bi sant ma sant ma ndax wa kaana fadlullahi alayka adima waaw li ma la defal ëpp na ndeysaan waaw li ma la defal ëpp na ah li ma defal ëpp na fu bi jaar ba yëngal yàlla yàlla ngi may dégg waaw moom xam na ko waaw fadlun li zil jalali wa minnatun eh wallahu yafalu ma yasha ma yara wa yashau noonu <laughs> que man yàlla dara tënku ma lu ma xëy gis ñi neex na ma rek loola lay def te li ma neex man yàlla mooy ma may la yow yonent bi ràng la di la ràng ba ràng la lu ëpp pour nit waaye yaa ni toll pour man te loola ma neex allahu akbar طغش الغيوب من العوالم يو انتبه طغش الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء جم جم nit جوغي تي كاو سوف دي خوتي asamaan yi waaw niir yi di traversé waaw waaw kullama tawiyat sama waaw waaye saa yu asamaan ba bàyyi ko gannaawam rek waaw sóobu ci beneen province ñu gàll ko beneen waaw mu koy xuus di dem sax xam na ni fadlullahi alayhi kaana aziman xam na ni li ko yàlla defal jéggi na dayoo ndax dem na ba li muy ànd ànd ak jibril mi miin yoon wi li muy war war ci budul paan ñaar yooyu li koy am am moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam dem na ba dem na ba tiit waaw lii may xuus di traversé asamaan bu jeex ma jàpp ni egg nañu ñu sóobu ci beneen waaw ma lii fan lay fan lay mujjee lii dem na ba tiit moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waaw ah, ah, mag ñi jàmbaar lañu ah, léemaay ba yàlla wax Jabrail alayhi salaam ni ko jàngal ko ko sakko ko. mu wax ko ndax mu dal ndax tiitaange ba dem waaw la mag ñi topp xaw ma fu nu jaar ak moom nag waaye topp nañ ko daal ba mu jox leen formule ba waaw ñu tudde ko xisbul baxri waaw ndax dem na ba alburaaq dafa meloon ni kuy xuus ci géej waaw tarchal xuyuuba li muy xuus xamul lan la japp ni geej lay traverser te kuy xey ci geej nak ci agogo lap xaj na ci ah ñu tuddé ko hizbul bahri يا علي يا عظيم يا حليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي كم وخل يا الله تلون يا رنتي بوكو تشي واي آه. انت ربي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي دوي نغما يو يالا انصر آه، من تشاء وانت العزيز الرحيم نسالك العصمه في الحركات والسكنات والكلمات والارادات والخطرات من الشكوك والظنون والاوهام الساتره للقلوب عن مطالعه الغيوب متح wut kilifa bàyyi fi mag ñi waaw bis dina ñëw nga rëccu waaw waaw mag ñi dañu bare mën-mën de waaw xisbul baxri ak li ci nekk tabaarakallahu axsanul xaaliqin waaw أمدال آه. في كل منطقة حواشي نورها نون وأنت النقطة الزهراء دمك موم ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم آه. يلا رسولك ليسان الله أكبر آه. اختانك موم جيلكو نك بريزانتي وملئو الأعلى ah département par département service yëpp service bu ne yàlla ñëw fa présenté leen yonent bi waaw ah, xam ngeen ko allahu akbar fa kenn réeréwu ko waaye yàlla ci tiitaru day sànn yi leen sama waaya waaw ah, sama waaya ah. ah protocole ba kenn musul gis lu ni mel ah kenn musul gis lu ni mel yeneen tibeeg leeram sallallahu alayhi wa sallam ba foofale fi mu jaar yépp jaaxal na leen ah ah, ah. ni ko bu fekkoonte ni eh, eh, dañ koy misaal ci ci ci waxin làmp euh, pétrole bi weer bi ko wër lu tax weer bi mën a leeral la ne ci biir di tàkk di ko leeral moo moo jox verre bi leer waaw waaw ni ko foofa nga jaar yépp waaw mu ni ko xawaashi nuuriha nuunun wa anta nuqtatu zahraa waaw yi kon nuun la leer la waaye la la tàkk ca digg ba di leer comme boo doon bind nuun tey tomb ba ca digg ba nga xam ni moom moo moo yënd secret ba du lu wërngalu loolu waaye la ca digg ba muy tomb ba looloy looloy ba waaw mu ni ko yow a nekkoon tomb ba Ah, leer ga fa doon jolli yow ah yow Ahmad ah, lu fa leer yaa ko leeraloon antal jamaal biha wa antal mujtala ndeysaan ah taar ba ca biir di merxati yow la taar ba yéen ñëpp ñu di ko xool yow la woon keroog wa antal mujtala waaw ah. taar yay ànd ceeñeer ya ànd di dégager di feeñ nit ñi di service ya di ko xool mu yéem leen waaw ah mu ni ko yawa woon wal kafu wal miraatu alxasnaau allahu akbar waaw na waaw ni ko yowooy tënk ba yowooy seetu ba waaw yowooy taar ba الله أكبر نيكو كيروك دال مظهر بوبو ييمنا ييمي بو خمني فو يالا نرانا أميناجة بور رسبوار لفا دالال لفا انفيتي لفا انفيتي سيرفيس يي نيكو فو مو خول رخيب كو ديسان ديسان لا إله إلا الله moo tax mu ni ko allah hayya min xadirati qudsihi nazulan li datika lam yajuzhu alaau waaye ahmad shawqi du nit waaw ko ferew ca xadratul qudus ci la yàlla seet benn espace waaw boo xam ni fu mu la bëgg yóbbu rek xeeb ko foofu rek a ko doyoon waaw fa la préparé woon ni foofa la lay wàccee nag invité ñëpp واو نظلا لذاتك واو سجم يعني فتشب وخمني لم يجوز علاء كوي فيتيو ككو العرش تحتك سدة وقوائما آه منك عرش آه أك بوتويا بيئي لمي كاوي كاوي الله اكبر ها ونيكو تحتك من يوم تسوف يعني فرنك لا يوان تكو عرش ومناكب الروح الامين وطاو لا اله الا الله نكو جبريل عليه السلام اجل مي تد تد ثم امين la muy am accès foofu yëpp yegg siwul fa nga nekk ndax sa ñaari tànk yaa ngi ko teg ca kaw laafam ya allahu akbar والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء إيه ni ko yonent yépp waaw ñu nga yem ca suufu aras ñoom ñoom yegguñu ci aras aras leen tiim duna la arsh lu tax lam yu'dan lahum waaw lam yu'dan lahum kenn permettre leen ñu jéggi foofu ndax du seen place wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum xamuloo ni xam fa nga war a yem nga yem fa balaa ñu lay wax sa bopp ci xam sa bopp la la bokk waaw ay rusulu duna la arshi lam yu'dhan lahum ha sha li ghayrika mawidun wa liqa'u waaw booba rendez-vous ak booba rencontre bu ci kenn def xelam waaw ndax pour yow la bu ci kenn def xelam ndax pour yow la waaw pour yow la du pour keneen bu ñëpp yemee cir nag am ñu gedd seen bos sallallahu alayhi wa sallam waaw kenn mësul dégg loolu moom daal nee na ko alxayru taaba gayra ahmada xaamiyan wa biha ida dukira smuhu xuyalaau waaw ndax ñun xeetam waaye du ñu tiitaruwaay ndax ñun xeetam du ñu tiitaruwaay ah waaw ah. ah. ndax ñun xeetam du ñu tiitaruwaay waaw ah. waaye tiitaru ba ko dàqal nag mooy ñu yar sunu bopp defar sunu jukko ba mët ka njaboot ba moom mu nuy tiitaroo lu tax du ñu tiitaru ci moom mu ne wal xaylu al xaylu taaba gayra ahmada xaamiyan ah. wa biha ida dukira smuhu xuyalaau alxaylu ñi ko fasi ah, taaba xaamiyan gayra ahmada dem sax xam nañu kuy yonent bi ba moom rek moo leen doy comme ku leen di làq ku leen di défendre ku leen di aar allahu akbar wa biha ida dhukira smuhu xoyalaau mu niñ dam da nga leen di gis sax fas yi fas fas fas fas laa wax boo tuddee tur yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jaayoo ñu jaayu ñoom fas yi ndax tiitaru sago tax waaw mu tax mu tax mu tax mala yëpp fas moo ci gën a tedd mala yëpp moo ci gën a tedd moom fas bu doon ci cadre yi nit ñuy xool li mu gëne ay moroomam dañ naan ni nabi yi yonent ni mu gënee nit ñi ci des waaw ah, fas ñu naan maqaama nubu wala yor ci biir bi ñu mu bokkal moo tax doo gis mukk nit ku koy teg fitna di ko liggéeyal liggéey bu metti ba mu tedd maa la ko wax ku koy toroxal di ko teg fitna ku la gis yéene la sarax waaw ah. am na lu ci ne koo gis muy jël fas di ko yar di dundal di sang di war di doxantoog moom di ko raay di ko woyal du ñàkk dara benn teraanga ci dundam alxayru taaba gayra ahmada xaamiyan وبها إذا ذكر اسمه خيلاء شيخ الفوارس يعلمون مكانه إذا هيجت أثادها الهيجاء ديسان آه. آه. تخ لولو غي جيس بني مسانا ديم خاري فاس يي خامني نيوم لا يلنتي بي اندال كي بير سولدا يي مو اندال fas yi daan def loo xam ni eh, loolu fasu fasu fasu kese kese mënu ko maa la ko wax fas yi xam nañu ki nu àndal wóor na leen ni ki nu àndal ci xare bi moo di yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ndamam mooy seen ndam gàcceem mooy seen gàcce te fasuñu yéen yonent bi am gàcce ñi mu àndal moo tax nga daan gis لا حول ولا قوة إلا بالله آه، فاس دي دف لو خامني دا غاي خامني فاس وي صح لي موي دف نيت كي دفو كو اندخ آه، وار فاسو فاسو خاري يومبل اندخ آه، لو خامني ياكو وار ياكاي جوبنتي جيمل في اريري جمل في لولو لولو لولو تي تي ساحه الحرب تي جيو خاري كي نيت كو فاسو دوكو ki nekk ci kaw fas bi du ko tal waaye fas wee participer waaw waaw fas wee participer waaw mel ni ñu ñu xabtal ñoom fas yi waaw ndax tiituru ndax ndam yonent bi mooy seen ndam ñoom fas yi waaw cheikhul fawaris yaalamuuna makaanahu ida hayyajat asaadaha al hayjaa'u waaw ah, ki dàq gawar ki dàq war dàq xeex xare ah, wax bu xare masaana tàkk diggante yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñi weddi lislaam waaw ah, ak cuuneem feeñ waaw lu koy nitam naw naw naw bu nee faas xare tàkk jàkkarloo kuréelu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak cuuneem feeñ آه. آه. وإذا تصدى للظبا فمهند أو للرماح فصعدة سمراء وإذا رمى عن قومه فيمينه قدر وما ترمي اليمين قضاء من كل داعي الحق همة سيفه فلسيفه في الراسيات مضاء ساق الجريح ومطعم الأسرى ومن أمنت سنابك خيله الأشلاء إن الشجاعة في الرجال غلاظة ما لم تذنها رأفة وسخاء والحرب والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا فالمجد مما يدعون براء والحرب يبعثها القوي تجبرا وينوء تحت بلائها الضعفاء كم من غذاة للرسول كريمة فيها رضا للحق أو إعلاء كانت لجند الله فيها شدة في إثرها للعالمين رخاء ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها فعلى الجهالة والضلال عفاء دعموا على الحرب السلام وطالما حقنت دماء في الزمان دماء تبارك الله احسن الخالقين آه. واذا تصدى للضبا فمهند آه. لا سنو مامي باب جسن بابا كرسي رضي الله عنه وخون تبم بردما نكارو ni duma len jité ci jakk ji jité len ci xel <laughs> ah xam kilifa bu xam boppam da du ko def ndeysaan Ahmed Shawqi nee na sunu waa ji yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuy jàmbaar moom ngay topp tànkam te doo ko séen waaw ah, ida tasadda li rubaa ah ah nee na bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defee faas jàkkarloog xeej yi jàkkarloog ñëw ko jaas yi kon ah jaas yi di mel xati ñaw ña koy tourné mën ko lool lool lool am kàttan ba ah, mu waaxu jëm ci ñoom nee na fa muhannadun ah ah ene kérok moy muhammad saif muhammad ah ah saif min hadid hadid al hind ah ah in ko askanale hind ndax jasi le bunyudan ñu daan ci wer weñ fer bo xamni mo gën ci fer yi gën ci dëgër bu ci jasi dalé ta bokku nu fer jasi bay dam wala mu yaqku mu ni yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaw kay jaasi ya ya daan amé su def faas waaxu jëm ci ñoom mooy muhannad bi waaw ah. ah. ku mu dal sa kaw doo dégg doo dégg dóor bi waaw ah, te ku dal ca kawam yàqu waaw aw li rimaaxi waaw fa saadatun samra waaw waaw ne walla mu ñëw def faas jëm ci xeej yi waaw ku tal fitam tiire ba mu dang fas la yéene jam waaw ah, nee na mu waaxu avancé jëm ci ñoom waaw ah, nee na keroog boo ko gisee nga xam ni fasaadatun samraaw waaw ah, waaw nee xeer bu dëgër waaw xeer bu tëx nga xam ni dara mënu ko pénétrer nee na moo di yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw wa ida rama an qawmihi fa yaminuhu ndeysaan an qawmihi boobu rek tagg gënu ko rëy ah daawul défendre boppam rek yem ci déedéet fu mu toll bëtam ngi ci ñi ànd ak moom di xare ndax causul islam waaw mu di leen défendre sallallahu alayhi wa sallam ah ah rama an qawmihi fa yaminuhu qadarun ah bu masaana sànni moom yenent bi moo xam xeej la wala mu xàcc dóor jaasi neena nday jor ba ngay gis yow yow yow mi xol waye neena nday joru yalla la du mom ah yalla tolole mbagam ak mbagam ni ko xàccal mu xàcc mu ni ko mu dor mu ni ko ñi yaakaar ya xatch ya dur fekk man yalla ma xatch ma dur wa ma tarmil yamin qaba'u ah bu sanne la loxo bay jam mu ni ne loolu loola nee na loola yàllaa ko visé yàllaa ko visé te yàlla du moy waaw wa ma ramayta is ramayta walakin allah rama akay yàlla ko ko wax waaw xare bi metti na noonu yee ko ëpp ëpp koy matériel yeneen ti bi duma leen dàq leen ñu daw ah gay di di di di di di fêter sen victoire yàlla ni ka ah, te <laughs> tey ngeen ma ko delloo ndeysaan yow sax xam nga ni du yow mana way yalla dal ah, yenen bi dal. sallallahu alaihi wasallam Liko yalla defal dal way yan nanu yalla duggal ci garanteem adina ak alakhirah waaye yan nanu yalla xoolee yenen bi yal na nu yàlla rusa yonent bi yal na nu yàlla sédd barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci na mu toll ci moom nanu yàlla aare ni yonent bi toll ci moom nanu yàlla suturaale na yonent bi toll ci moom sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, bëgg sa jaam mu toll la ba foofu waaw bu nekkee ci xare sax bu xàccee jaas yi dóor loxo ba lañuy gis mu jikk waaye sa loxo la waaw lay wan ni sa loxo la mooy na muy def noonu ya waaw bu sànnee xeej yowa ah la hawla wala ma dal abdi yataqarrabu ilaya binnawaafil waaw demal ci xadis ba waaw xëy rek defar sa jukko ba xaritoog yàlla waaw ba yàlla abal la waaw loo soxla mu abal la ko ah waaw ba yàlla loo soxla mu abal la ko ah moytu ko wallahi wallahi ba ñu lay woowee nitu yàlla ah nitu yàlla ah na mbokk mu baax na ko yàlla sàmm te yàlla dolli ko suturaal ah Cheikh Ahmed Tijani Kebe bu sayid Cheikh Ahmed Tijani ci almaktuum ñuy waxtaan fan yi di ma wax baat bu ko sama sëriñu bopp مولانا سيد شيخ محمد المنصور سي ابن سيد شيخ احمد تيجانتي المكتوم واخ كو ديغ ني نيتو يالا لا تموي موم لوي مويتو يالا رك مويتو كوكو داخ لولا يالا منال تي ليو منال نالاكو واي لولا يالا منال تي مصيبه منال نالاكو يالا كو ابال الله اكبر خنا دغ am na ñoo xam ni waaw ku yëbbu rek moytu leen ndax lu la yàlla mënal ci yiw mënal nañu la ko ndax du ñoom yàlla jubóog ñoom ba foofa lu ñu namm ci yow yàlla fekk leen ci waaye moytu leen lu la yàlla mënal ci safaan mënal nañu la ko ndax lu ñu nësal ci yow yàlla fekk leen ci te ku ñu fàdd dootoo jóg maa la ko wax ah. Ah. waaw dafee daal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam himmatu min kulli daai lxaq ah. ah fa li sayfihi fi raasiyaati madaau daal boo ko xoolee ci toolu xare nga xam ni jàmbaar yi moom la ñuy waaye duñu ko dab Ah. ah ndax jaaseem ba kenn rek lay wër ah mooy ku fi wootee leneen lu bokk ak dëggu yàlla gi mu yoon moom yonent bi ñaari dëgg amul benn dëgg la te moom la ko yàlla jox waaw ah, ku fi woote geneen dëgg rek jaaseem a nga lay wër keroog waaw ah, waaw te bu xàccee du moy te bu dalee àgg fa mu soxla waaw ah, ni ko montagne sax waaw ah, xeer yu dëgër yu yu dëgër yooyu sax bu ci yonent bi sippee jaaseem jaasi ja du taxaw dana ko xotti ba ca suuf ànd ak loolu yëpp nag jukkoy sang gi nekk ci moom jukkoy sang gi nekk ci moom saaqil jariix yi allahu akbar ساقي الجريح ها ومطعم الاثرى ومن امنت سنا بك خيله الاشلاء لا اله الا الله واو اسك ادني بمن جك تدلو لي محمد صلى الله عليه وسلم لا وكلا نك ku dem ba séq ak say noon di xeex ñii blessé ñii ñi blessé leen jàpp leen ay otage indi leen day sànn ah xare bi jeex ñu ñibbi si waaw ngay seet ña ñu blessé nga di leen toppatoo di leen jox ndox ñuy naan di faj seeni blessure ah ci ay otage lañu dañ leen jàpp ci xare bi ñu féete woon ak seeni noon waaye koy sang ba yegg foofu ñoo waroon a jàpp di leen torturer comme li xew ci àdduna bi léegi pour xam secret yi noon yi nekke nga wut ndox ku mar nga jox mu naan ku ñu blessé nga faj ku xiif nga jox mu lekk di xool fa ñuy tëdd ndax méngoo na ak dignité doomu aadama wala déet hein ah waaw ñi échapper ci xare bi yépp boobu jëflante ngay jëflante ak ñoom waaye inna shujaata fi rijaali gilaadatun ma lam tadinha rafatun wa saxaa'u bari na ku ñu ni jàmbaar nga ah ah te njàmbaar newu fa ak coxor moo fa nekk maa la ko wax waaw inna shujaata fi rijaali xilafa bana ne ku ñu ni jàmbaar nga di la tagg ci toolu xare fekk la nga def njàmbaar taxul ak coxor la nee na du ñu ko wooyee njàmbaar maalam tadinha rafatun lu dul bu ko yërmande tungoomee moom njàmbaar Ah, wa saxaa un ak tabe ci li nga baaxle yéene ko ki nga seqal xare bi looloy njàmbaar ah, am sa noon seq ak moom waa ah, xare tàkk ngay sàmmoonteeg makaarimul axlaaq ba foofale yërmande wan ko ni ko lii li man li li ma la jox la am mbax la am jàpp otage yubbu war ko meuna torturer dag loxo dagg nopp dagg tànk metital waye mo wan ko ni ko man li la baaxle waaw lii laa am li ma la defal ni mom la am waaw nak wal harb min sharaf sharafi shuubi waaw فإن بغونك فالمجد مما يدعون براء ها آه. آه. بارنا خيط وجد سن اندبندنس جد سن ليبرتي جد سن عمر تلين كمي موي جاي سن بكن خاري خاري مولن كمي واي نك فإن بغو واو آه. waaw waaw fa in jaawazul xadda su ñu demee nag ba débordé ba jéggi dayo ci jëflante ba ca biir xare ba ah? mu ni ko su boobaa tedd nga bi ñu doon woote ci ñoom dàqu na waaw nit ku tedd du débordé waaw su amee la mu bëgg arrêté waaw nit ku tedd du débordé waaw su amee la mu bëgg arrêté waaw wal xarbu yabaathuha alqawiyu tajabburan wa yanuu taxta balaiha duafaau xoolal loolu wal xarbu ni ko xare yabaathuha alqawiyu waaw foo gisee mu tàkk rek ki taal xare bi mooy borom doole waaw tajabburan waaw pour rëy rëy lu wane nii euh, kenn du ma tooñ am naa doole am naa armée kenn mënu ma résister pour wone dooleem nga foo gis xare tàkk rek ku mel noonu ko taal hmm? gis lu mel noonu rek borom doole ko taal. ah ndax dooleem moo ko yéem ba mu bëgg def démonstration pour wane kàttanam te jabburan ah ah nahnu ulu quwatin wa ulu baasin shadid ah nahnu ulu baasin shadid wa ulu quwa ah ah, ah. fëgg seen maam ñun kenn mënuñu résister waaw kenn attanuñu kenn mënuñoo dékku te kenn mënuñoo taxa raf ñu ku leen bàyyi ñu tukkal àdduna ndax bu ñu atteindre seen objectif du tax ñu taxaw dañuy def ba def ca lu bokkul waaw moo tax mu ni fa in baraw fal majdu mimma yaddaawuna baraaw waaw waaw wal xarbu yabaatuha al qawiyu tajabburan waaw toog rek ci sa jaaxaan ci sa fëtëy waaw joxe ndigal ni ay ca na bal yi tàkk ndax naw sa doole naw sa armée ah yi ratatat di tàkk wa yanuu taxta balaayiha duafaau ah kan moo cay dee léppoo kase ñan ñoo koy paye ak bu afa ñu néew doole tiim dëkk di leen jóor ay bamb ñi nga xam ni tey ñi ngi doon xaar ci yow nga wut mburu ñëw sotti leen ko ñu jëkkante mburu ma def seen biir nga di leen dóor ay toni bomb ab doafa ab doafa waaw waaw ab doafa pour lan pour rek tajabur wane ni yaa fi mën ايام نيكلير ايام بومب اتوميك force bi yaa ko yor mun yonent bi nag yow bokku ci gaa yi kam min gudaatin li rasuli karimatin ah waaw kam min gudaatin waaw ñu ne gudaat rek xare ya la bi ñu ne gazwa rek benn ba la benn اسم الغزو الغزاة كم من غزاة كريمة للرسول فيها رضا للحق أو إعلاء الله أكبر آه. آه. سبب تخلون آه. يكتي دق ah ak fexe ba installé ci ci penc mi li yàlla bëgg li yàlla gërëm moo taxoon ngay xare mais fallu taxul woon fi haariban waaw waaw waaw fi haariban lil xaqi waaw waaw kaanat li jundillahi fiha shiddatun وعينك في إسرها للعالمين رخاء الله أكبر كانت لجند الله فيها شدة كلن فكون فنين دي خاري يوين تبيك نيغا عندال سلداو يالا يوي مواتشي عمغا يالا بودمي بخاري جارالكو كوز دقم مو جارالكو مو يبال اي ملاكة ها ها بابو ترنا ها waye lan la ci doon sentu waaw ah, fii isliha raxaun lil aalamina mooy bu weesoo rek jàmm am pinc mi jàmm am fi ñi daan tooñ bàyyi tooñ ñi jubadi woon bàyyi jubadi ñi dëngoon bàyyi dëngte ah ah ñëpp ku ne xam sa bopp yem fa nga war a yem waaw ah, paix am sécurité am stabilité am raxaa waaw ah, siatul aish wa xusnul xaal waaw lu tax ndax yi indi loolu yi indi déséquilibre ci société moo di ab balaala wal jahaala hmm? ignorance ah, riir bew waaw ah, yari diku ah. ñoom ba ñuy xare xeer xarewuñu woon pour rey nit ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها آه آه فعلى الجهالة والضلال عفاء آه بني خاري دور يون جم جم رير لن يدون دور نحن nit bu xamul lu tax yàlla bind ko indi ko kuy tax mu xamal nit ñi lu tax mu bind leen nga ni du ko fi waxe ko boo jàkkaarloog moom jëmmi nit newu fa jëmmi dalaale moo fa nekk riir waaw moo tax mu ni darabu dalaalata dóoruñu nit ñi dee déedéet sànkute moom lañu ñu dóor darbatan ak dóor boo xam ni dahabat biha ca la riir doxe dee ba faw waaw fa alal jahalati waaw والضلال عفاء آه. نينا الجهالة مي إنورانس آه. والضلال أكسانكوتي نينا عليهما عفاء نينا الكلنيو دينانيو تاغينانيو لين جيخنا يننتي تبي صلى الله عليه وسلم ديك آه ممدال دعموا دعموا السلام على الحرب moo tax mu ni daamu ala alxarbi salaama wa taalama xaqanat dimaan fi damaani dimaau xaqanat dimaaun fi damaani dimaan ah ah daamu daamu salama ala alxarbi ni ko seen xare yooyu ñu daan def ah appi la yoo xam ni ci lañu ci lañu ci lañu sukkandiku pour installer ci àdduna bi jàmm ñu li ngeen di wax la paix bu ñuy dund ku ne jot sa àq ku ne ormal sa moroom ah kenn du tooñ waaw hmm? ah. ah. kenn du tooñ jàmm am iko sen xare yoy moko fi indi mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni wa palama haqanat dimaan fi dhamani dima'u muni barena derat deret bu ñong dak bakkan bu ñu sam ba demul deret bu ñu sam ba turu te deret ju turu moko sam sàmm ki sàcc ki sàcc ci quartier bi ñu jàpp ko topp ko enquête ko ba mu laaj ñu dagg loxoom loxoom boobu ñu dagg moo sauvé yeneen loxo yi ñu waroon dagg ndax ku naroon a sàcc te nga xam ni boo sàccee ñu dagg sa loxo comme kii dootoo sàcc <coughs> hmm? waaw ki lislaam reylu ndax li mu def waaw ah, ñu rey ko bakkanam boobu faatu moo sàmm bakkan yi faatuwul ndax comme ku def li mu def lislaam reylu la te bu ñu ko reyee ñi ko waroon def yëpp bàyyi ko seen bakkan dus des fi dund ah tabaarakallah ahsanul xaaliqiin yegg si nañu fi minit yi jare jeexe ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu mucc ak mucc la wér ak wér le dund ak dund le ki ne woon ci daara ji seen mbokkum taalibi alxaaji Abdul Aziz Fall allahuma arham ibadaka wa biladak wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu